forme boo ko déggee mooy sàmmkatu jàmm sàmmkatu jàmm mission mooy fexe ba fépp sénégalais yi daje mu am fa taxawaay boo boo tax nit ñi nga xam ni ak njub moo leen tax a jóg ñu nekk ci jàmm ak salaam pendant événement bi fu muy tàmbalee ba fi muy jeex ba fi nit ñi di dellu suñu ñëw fii nag euh, ci champ de course tradition la boo xam ne léegi mu amee fan léegi mu yàgg waaye toujours ci suñu kilifa imam Khalifa Mbaye bu ñu ñëwee moom la ñu fi fekk ak ñi mu àndal ak kilifa yi nga xam te yéen ñooy saytu organisation ñu wax leen nan la ñu bëgg a taxawee ñoom it ñu wax ni nan la ñu war a taxawee ndax xam nga ñun suñu objectif mooy jàmm rek wax naa ko fële léegi mais guddaluma ko woon dama ni ñetti jàmm de Latif la te Latif wax dëgg yàlla fu mu am jàmm dina fa bari lool. wax boor ñetti jaam boo ko tegee cent la lay jox cent vingt boo ko tegee latif la lay jox te doomu aadama dama ne li wax fële léegi ni lépp lu ñu man di saam saam jàmm booy teeg teggil jàmm lu ko mooy beneen saam boo teggi boo paree di soxla jàmm kon nag booy teggi teggil jàmm dañu fi ñëw également pour jël élément yi ñu nekkal ñuy liggéey teg ko ci disposition commission d'organisation waxoon naa ko noonu bëgg benn benn bés noonu naa leen suñu mission di waawoon lay tax loo xam ne mission bu dëgër lay doon du ñu ci bëgg benn faay ci dispositif bi kon ñi nga xam ne ñu leen fi yabal ak ñi fi nekk kenn ku nekk ci ñoom war ngaa am xereñ ak taxawaay boo xam ni lépp lu waa commission d'organisation bi soxla nga saytu ko taxawee ko boo ko mënee à cent pour nga def ko boo ko mënul boo demee ba am taktak nga ñëw ci kilifa yi jiite ñu indil la seen compa seen xam-xam ak seen expérience nga boole ko ak sa xam-xam mu dem